dañ ko war a bàyyi. buñ ko mënul nañ ko jéem. loo jéem bu yàggee di nga ko di ko mën a di nga di nga mën a réussir pour bàyyi ko. rawatina nag weeru koor bi. ci koor gi macha allah. macha allah ñu ngi ci koor gi comme ko lu baax la rek war nañu ci koor gi. Mm-hmm. waaye damay ñëw nag tuuti yaay ñu wax doore suñu waxtaan ci li nga xamante moo di jeexitu koor gi ndax mu mm-hmm. bëgg ñu waxtaanee xale jigéen yaay ci jeexitu koor mm-hmm. gi. jigéen mhm. di waaw waaw di sant yàlla jull ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Xaadim Rasul di gën a yeesal sama njébbal naa ko Mbàkke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar di wax jërëjëfe Serigne Moustapha Sy. Mhm. léegi loolu laa ciy dolli di nuyu sama doom yi ci àddina bi yëpp. Mhm. leen ziar. di leen wax ne korite dafa nekk benn bis rek tabaski doon benn bis rekk tey jii bu dee tabaski bu ñu xasee ba rey xar yi ba lakk bilaay boo ca leboon un million pare nga añ ba sax boo lekkee ca lakk ba sax añ ba sax mën naa am doo ca laal concurrence nag bu mu tax nga nga joxe sa bopp te sa yaay yaakaar la ëmb la juróom-ñeenti weer mm-hmm. wasin ni mettee mm-hmm. nàmpal bu guddee ngay jooy sa waajur du nelaw di la toppatoo ba nga màgg mu yaakaar ci yow benn bis rek korite tax nga dem sacrifier sa bopp te doon gune loolu man d'accorduma ci bu leen cheveux naturel cheveux naturel bu mu leen jaral ndax cheveux bu xew tey balaa benn weer beneen cheveux day xewaat benn yére bu mu tax xale yi yi sacrifier seen bopp def loo xam ne waruñu koo def ndax yére bu xew ci weer bi ñu ngi ci ban weer sax euh, mais balaa juillet di ñëw wala ci ci juin bi sax yeneen yére yu dàq yooyu day ñëw àddina noonu la man damay gis bu nit jëlee fii sama yëf te mayuma ko ko yenn saay dama ciy mer waaye yenn saay duma ci mer ndax damaa xam ne la mu la mu ñëw di jël di ko yóbbu balaa weer weer dellu si loola dina sàppi chaque jour que jëfee suñu borom dafay dogal Sénégal alhamdulilah rabil alamin nga développement am la macha allah xëy na xaalis kay la Macky Sall nanguwul a génne waaye réew mi naat na xaw ma lu fi manqué waaye du yére xanaa njëkk nga koy jënde ma lu fi manqué waaye du dàll baarakallaahu naat moom def nañ ko macha allah balaa ko xam nga dugg marché caaro yi. Mhm. du nuyu waa caaro yëpp. lujum yi. macha allah. kon Sénégal naat na. Mhm. yow nga doon xale. Mhm. fexeel nga liggéey. jigéen daa war a mën a togg boo demee ci restaurant chaque fin du mois lu mu bon bon di nga am soixante mille. wala nga am cent mille francs ci restaurant yu mag yi. utal sax sa métier ngay ngay létt. gere fa du tax ngay dem defi dara faaw nga am métier mais yow yoruloo métier say waajur bu ñu amul doole yow yaay dem yenu loo xam ne bu ëllëgee doo ko wax say waajur sa waajur taxaw yaakaar ci yow ngay tas yaakaar te bu ëllëgee sa jëkkër du la jox cër mukk gis naa ko gisatu ko kon événement muy korite muy tabaski barakati laa ilaha illallah muhammad rasulullahi man musuma sonal sama papa. ci tabaski. pour jooy papa aw ma yére tabaski. barke Seydina Mohamed. musuma koo def. musuma sonal sama yaay ne ko samay morom am nañ lii déedéet man man nii rek laa mel man. mu amatul xam nga góor ñu ñoom. Mm-hmm. dañoo dofut. Mm-hmm. te dina jàpp leen. ndegam nag ñoom ñi nga xam ne jigéen ay seen waajur. ñoo mën a nekk nit astimaak nag jigéen jigéen boobu moo war a gën a muus góor sax tey bu góor taxawee jigéen a tax nañu xam seen bopp. nu jigéen xam boppam nu yaasin buubu taxaw woon Aline Sitoé Diatta taxaw taxaw noonu kenn ku ci nekk yaa am sa yëfi bopp yaa am sa maturité bopp yaa xam ni nga bëggal sa bopp. am na xale yu jigéen yoo xam ne macha allah da nga leen di da nga leen di jox cër mais benn korité bu taxawee nga dem sacrifier sa bopp tant pis mi ñaanal ma leen loolu dañu war góor góorlu man nee naa leen man Selbé Ndom darajey Seydina Muhammad musuma sonal sax sama jëkkër ci yére korité man tabaski da daan jot ca xel koom sama jëkkër dafa naan ma ngir yàlla li ma la xottil demal nga sol ko ma ne ko taluma ko mu ne ma ngir yàlla sama jëkkër a ngi dund Momar Mbay mi ngi dund mu ma solo si yére nga nuyoo dem ci koñ bi ma ne kon de xam naa du ma yàgg du ma du ma sangu de mu ne ma sangul ma ne ko du ma sangu damay xëppoo ndox rek sama yàpp baa ngi nii ma war koo muusal war a defar laxasi ah ma naan damay sol te man sama liggéey baa ngi nii booba taluma ko yow loo doo sol loo woon doo lekk loo lekkutoon am na am na tabaski goo xam ne su ma leen waxee li ma añee dañ naan déedéet bisu tabaski mm-hmm. ma yeewu awma lu ma lekk benn mango bu juróomi dërëm laa jënd mburu fukki dërëm mbuusu suukar juróom poñse suukar ak mburu bisu tabaski barkati laa ilaha illallah muhammad rasulullah loolu laa añee mburu fukki dërëm suukar juróomi dërëm ak benn màngoo bu juróomi dërëm barke laa ilaha illallah man Selbé jour tabaski moom laa añee naqariw ma de xam nga lu tax dama xam ne sama baay yal na ko yàlla xare àjjana lam ma jëndal ci xar lu ma juddoog tey sama pàpp di ma jëndal xar ba suñu borom def ma am borom kër ma sëyi ba sama papa génn àddina ma tàggook sama borom kër sama borom kër rek ñaata xar la ma reyal kon su ma toogee jóge ki sama sëy tabaski ñëw aw ma tabaski awma ma xar barki yonent bi bu nekkoon mburook ndox kese dinaa ko muñ te dinaa ko lekk loolu mosuma ko wax maa ngi ko doog ko doog waxee Sénégal Buzz kon na xale yu jigéen ñi am jom te xam ne seeni waajur yi ñu ngi leen di xaar seeni mbokk ñu ngi leen yaakaar événement korité bu mu tax ñu def lu ñu war def ndax korité gi benn fan kese la rumbulement bi avant muy ñëw dañ ne korité jeudi la rumbulement bi diggante mardi mercredi la mais le jour boo xëyee suba dekk sab laax sax tëdd ki sa kër toggoo dara sax maanaam amul benn problème biir ci boppam moo dul fen nga léttu say létt yu baax renversé problème bis dina ñëw suñu borom dina la jox ay cheveux yi cheveux yi cheveux borom dina la jox ay jasineer gis naa fi ñu bëri ñoo xam ne amuñu woon dara mais tey sunu borom dañoo muñ moo tax sunu borom jox leen. tey ñu indiwaat man maa ngi nii nee naa leen barkati laa ilaha illallah muhammad rasulullahi toog naa ay at yoo xam ne aw ma sax xalaatuma sax xott yére noonu laa yére sama doom bi yaasin. Mm-hmm. koriteem ngi ñu ñëw. Mm-hmm. barki Seydina Mohamed laaj naa ko ndax ma xotti la mu ne ma yaay déedéet moom événement màggal la musta jooy na ma yaa xottiloo ma korite nii tabaski nit man nit ma yare noonu laa yare sama doom du génn fii mukk di uti cheveux doomu aadama dangay doylu donte kon am nga ko sax bul wonewu man mi toog naa tabaski boo xam ne maa leen ko waatal ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi mburu fukki dërëm laa laa añe ak suukar juróomi dërëm ak benn mango juróomi dërëm damaa def sama poñse def ci ndox yëngal jël mburu mi di ci dagg di lekk bi ma pare ma raxasu daal di jël sama mango raxasu ba mu set lekk naan ndox ab tabaski daf maa wàññi dara man fii tabaski duma solu mm-hmm. du sol mën naa am may nit mu jënd xar ma togg tibbalaate démb am naa gan tufe laa ko toggal xaw ma ba te yàpp nu mel dama dem def sama mbaxal keccax bu neex mhm. moom laa togg. loolu tamit lu am am solo la ci message bi nga xamante ne lancé nga ko ñii di xale jigéen ñi ngir ñu gën a delloosiwaat seen xel ci yii les yi nga mhm. xamante ni day jàll rek dem boo xamante ni ba tey ni nga seede ci moom rek maa ngi koy wax sànq bëgg la rek ak yëpp ñu mhm. sëñ Moustapha Sy macha allah di ku baax démb ñu seetaan ko mu def témoignage bu am solo ci ki nga xamante ne moo di suñu papa Thione Seck mhm. seetaan nga discours boobu yaay <laughs> boobu boobu maa ngi toog. yaa ngi kooku moo baax. suñ Moustapha si mooy ki ñàkk ñaan. suñ Moustapha si mooy ku baax. boroom xol bu rafet boroom xol bu sell muy Serigne Moustapha si as bi ma ci teg. xam nga yàlla daf ñu woon exemple xam nga nee al Moustapha Sy siddiqu wax ko tu dëgg bi démb suñu borom may na ma ndam ndax koo xam ne mosu leen fekkante fenn dañ ne fii lay jëndee moom foofu lay jëndee costume coon sekk yal na ko yàlla xare àjjana rahmatullahi alayhi yal na ko sunu borom xare àjjana ya gën a kawe dajay Seydina Muhammad ñu doon bokk fenn fu ñu doon jëndee costume ci maandu coon xam nga Thione Seck li tax man ma man ma bëgg ko man damay xool ay nit ay qualité dafa am qualité yu ma neex. Thione Seck naqarewul deret de dafa dëggu. dafa dëggu. ndax ñaan coon dafa naqare deret coon naqarewul deret dafa dëggu ragal boroomam moo tax. lu mu xamul du ci du ci du ko wax lu ko leelu lu ci dugg biñ ko laajee ndax kii xam ngeen ko Moustapha daf leen laaj ne leen ban Moustapha la. Mm-hmm. bi ko si Moustapha di wax man maa ngi toog zéro Mhm. mu ne ko monsieur Sy dañoo bari mhm. ci lañ xoole xoole xool ba gis Moustapha Sy. Mhm. mu ne leen ndax xam ngeen kooku bu ñëwee na leen ñaanal kon Thione moo ñàkki ñaan. di ko ñaan seede boobu suñ Moustapha seedeel ko. yàlla na yàlla def Thione Seck yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe. Thione dëgg rek lay woy léegi nag ma ñëw ci sëñ Moustapha mi nga xam ne. sëñ Moustapha kenn ñemoo la wax ci moom dara lu dul dafa baax sëñ Moustapha si àdduna bi kenn ñemewut a wax ci moom dara lu dul dafa dëggu sëñ Moustapha si kenn ñemewul a wax ci àddina bi lu dul sëñ Moustapha buggul lu bon soxlawul lu bon lu baax rek lay def sëñ Moustapha si lu baax rek lay wax sëñ Moustapha si lu baax rek lay seddal nit da wax dëgg de assidur bi may wax démb wane na ko nee na amul affinité ak Thione Seck waaye xam ne li tax mu di ko jaale mooy dëgg ga mu ko waxal ak ñàkk ñaan ga mu def moo tax mu jaale ko loolu koy fala fala assidur ko jeexe loolu fala waxkatu dëgg jeexe loolu fala sincérité jeexe loolu fala ñàkk ñaan jeexe si Moustapha Sy dafa ñàkk ki ñaan eh man kenn du ma ne yàllaa ngi nii de te gisuma ko waaye dafa maa won loo xam ne jar na ko sëñ Moustapha Sy li tax ma topp ko nee naa leen day wàll yu kaamil Cheikh Ahmad Tijaani moo ma wër si jox ma loxo Seydil Hadj Malick moo maa fee ba Seydil Hadj jaar ci palanteer bi def biddéew ñëw génn tiim ma ne ma selbe ma ne ah ne ma bindal ma allahu sa feebar bi delloo ko ci allahu mu dem sama téléphone ne kar nit woo ma Selbé ah ma ne ko damaa feebar lu la dal ma ne man daal sama yaram bi moo bañ damaa sibbiru mu ne ma jëndal garabu nangam boo koy naan di jóg monsieur di Hadj Malick demee rek la la kooko wootee téléphone ma jënd garab yooyu naan ku wér kon Seydi Hadj Malick man moo ma faj